allo salam alaikum euh, madame, je suis vidéo euh, page Fall aussi bien à PASTEF que à opposition parce que à opposition euh, ministre madame Yacine Fall Russie def fait un discours nous avons arrangé

mom du gis lu li de Mom day ci bir lu bax li as lu rek mu dénigrer ko légui na man que wax ñi discours ba parce que je ngeen di sama page di critiquer nan wa mom anglais la dégg déggul français da ngeen dem ngeen da ngay à la fin après ngeen ñëw nga ko critiquer

mais visite de a été très réussie par notre ministre des affaires étrangères madame Yacine Fall ñen euh, di bañ jigen tamit bu parce que vous êtes un peu jaloux mun ngeen ñu qualifier aji vous mun nous euh, qualifier bu bon mais de faire comme genre Mimi Touré genre mère Yacine Fall le lu baax li ko lu bon léegi képp koo xamante ne dafa dugg sama page di critiquer maire Yacine Fall man dama lay bloqué te commencé naa ko dèjà présent muy waa Pastef mu nekk waa pouvoir képp ku naan déggul tubaab dama lay bloqué damay bloqué sa ndey parce que déggul woo lu nit ki wax nit ki balaa nga koy critiquer da ngay dem nga déglu li mu wax ba pare A à Z nga doogay ñëw nga toog nga ne dama koy critiquer li mu def russi amul daara luñ ciy critiquer français yu leer naññ la fa làkk français yu leer naññ la fa mère Yacine Fall làkk te bu ma gisee ñi koy critiquer yéen ñi nga xam te ne français nekku seen langue de base yéen ay critiquer mère Yacine Fall mais français mais tubaab yi nga xamante ne ñoom dañ ko relayer seen télé yi ñoom dégg nañ tubaab yi ci la ñu yaroo ci la ñu màggee seen maam yeeg seen maamaati maam yëpp ay français lañu ñoom critiquer wuñu français yi ndax lam mère Yacine Fall wax ñoom dégg nañ ko

façon, ici, les, les rôtis, il est prêt vers 11h. Ah, mais là, c'est prêt, là Là, c'est prêt Oui, mais là, on va chercher de la viande hachée. Ça, on ah, on change. <laughs> ben bon, bon dimanche, hein Ouais, profitez bien. <gasps> Alors là, j'ai peur, hein <laughs> lii na man ku duggati sama page di ma waxooku français ah man maay bloqué sa ndey man ma lay bloqué man ma lay bloqué parce que yeen do leen diglu gat yeen wa passé ah yeen do leen diglu gat gat gat gat gat gat gat yeen wa APR dañuy ñew rek sandi ben affaire do leen dem xol yu originalu vidéo bi ah tek fi original bi won leen da ngeen di dul dedet yeen da ngeen di dem di top ci ginnaaw wa APR di dëggal ñom la wax parce que da ngeen am paresse su déglu léegi nit ki bo amé paresse su déglu noonu maa lay nuy bu bo amé paresse bul tontu bul tontu ba pare yéen li ma metti mooy mère Yacine Fall lu baax li mu def Russie yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp def naa ko sama page de mais yéen ñi naan da ngeen koy défendre naan waa di anglais la gën a dégg ah yéen la mu wax Russie sax yéen partagé woo leen ko. li am importance ce discours bi bañ koy relier te télévision tubaab bi te sénégalais yëpp waroon koo dégg muy partenariat bi nga xamantene mom lañu bëgg signer pour sécurité sénégal yeen loolu relier wo len ko dé loolu loolu yeen do len ko relier yeen té man déglu na mère Yassine Fall du début à la fin mère bi bandi la <laughs> mère bi bandi la ji nga mère bi bamuy wax ci bamuy bamuy wax ci partenariat sécurité bi da ko utiliser ci français bu lèr na ñi na ñi na ñi na ñi na ñi na ñi na ñi na ñi na ñi bu ñepp dégg 17 maa lay nuyu bu baax a baax ba mu ñëwee bay wax ci blé bi maire bi moo def exprès def tournure boobu maire bee leen gën a dégg tubaab yéen ñiy wax nii moo leen gën a dégg téeméer yoon tubaab gën a dégg seen ndeyi tubaab gën a dégg seen bàyyi tubaab gën a dégg Molière tubaab. léegi nag maa ngi xaaraat ba kenn ñëw sama page man maa ne maire bi maire bi xanaa Molière a ko jàngal ba ngeen ñëwati ah naan maire bi anglais la dégg bépp waa Pastef bu taxaw sama page ne maire bi anglais dégg déggul français man maay bloqué sa ndey. parce que loolu mooy yow moo déglu la maire ba wax nit ki balaa nga koy tontu balaa nga koy défendre danga koy défendre ci ay argument man dama jël sama temps ma déglu discours bi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp la mu wax foofu yëpp Russie am fa benn faute zéro faute ma dem xool li baax li nga xamante ne moom la ci tubaab yi seppi dem relayer ko seen télévision yi ma dem jël ko enregistrer ko partager ko sama page pour sax yeen sax ngir mëna sax li déglu vidéo bi sax pour mëna défendre mère Yassine Fall dedit yeen demo len déglu lam wax de yeen daggit bu ndaw ba wa APR dem partager pour dénigrer ko yeen daggit bobu ngeen basé wu pour né mère bi déggul tubab mère bi gëna dégg sen ndeyi tubab gëna dégg sen bàyyi tubab gëna dégg sen mami tubab léegi nag ngi xaar parce que depuis que ba suis ah maa ngi sur di sama page je suis Pastef waxuma waa APR parce que waa APR nous sommes sànni nañ li ñuy sànni ba pare di xool yéen mouton mouton mouton répondeur yi naka ngeen di réagir et effectivement da ngeen tombé ci wa piège wa APR ndax wa APR li France 24 bi li TV5 Monde relié li France 24 relié

man nak li arrangé wul wa APR loolu la jël séppi ko ci discours bi def ko sama page je m'attendais à ce que wa passé partage ko défendre maire bi ci ay base yu solide woné né né maire ba lamu mu Russie yépp lañ ko yoni da ko da ko dox ba mu mët sëkk bu gis ko déedéet ngeen ñëw na maire bi mom anglais la gëna dégg anglais la jang fi nekkul problème anglais français dé maire bi lañ ko yoni da ko wax ba mu leer nañ ba tuba bi dégg ko ba relayé ko ci sen chaîne télévision yi la barre la yi bonjour vous avez un sac oui. est-ce que vous aimez les figues parce que j'ai un sachet de figues mais il y a un tout petit peu de moisissure hein. sinon vous pouvez faire de la confiture avec comme vous voulez, hein, sinon je ne vous mets pas. Bah écoutez, il y, aura des melons, il euh, y aura des carottes, il euh, y aura des pommes de terre, euh, courgettes, concombres, tomates. Très bien, et vous pouvez mettre les figues aussi. D'accord. Ok. Et bananes aussi. Ah, vous êtes allergique à la banane euh, de quelle banane Parce que moi, je sais que j'étais allergique à la banane, mais depuis que je mange les bananes bio, je fais plus d'allergie. Parce que dans les bananes pas bio, il y a du, chlordécone. Euh, moi, j'ai que des bananes bio. Hein. Si vous voulez, je vous en mets. Vous essayez. Euh, non, il n'y a que trois bananes ah, Vous essayez, on ne sait jamais, parce que moi j'étais allergique à la banane pendant des années. Hein. Et là maintenant euh, Depuis que je mange les bananes bio, oui. Bah, moi ça me mettait de l'angine, vous ça vous fait comment vos allergies euh, euh, bah, Parce que les, je sais que le, le chlordécone ça fait des ravages. Hein.

mais donc quoi koy défendre ci base yu solide c'est-à-dire donc quoi koy défendre si ay argument les mots wax nga ñëw quoi ko boo leen défendre mère Yacine Fall da ngeen di dem ngeen discours ba mu def ngeen déglu discours bi attentivement ngeen dem ngeen tontu waa APR parce que discours ba mu def zéro faute zéro faute man dama ko déglu dégluwaat ko dégluwaat ko les boo leen bëggee ngeen woo ma ci suuf ma envoyé leen intégralu interview bi ah ngeen liir ko ngeen déglu ko ba pare après ngeen dem ngeen tontu waa APR ci seen page te boo leen dégloo intégralité vidéo bi ah, ngeen dem tegal ko waa APR du ñu ubbee di seen gémmiñ bi dañu naan pat noppi. mais bu fekkee ne yéen ñi ànd ak mère Yacine yéenay commencé naan mère Yacine déggul tubaab ah tombé ci même piège wu waa APR yi yéen yéenay jël paaka di ko rendi seen bopp seen ministre boobu noonu la mu doxi Russie sénégalais yi ñoo koy yab de waa Russie duñ ko yab sénégalais yi ñoo koy tutoyer de mais waa France duñ ko tutoyer ndax la mu doxi Russie yëngal na Araas mais comme yéen la mu dox lu si yéen lijjante woo leen ko moo tax munoo leen inter intéressé wu séjour ba mu def Russie yëpp chaque jour lan la fa doxi man jàngal na ma ba jàngal ma benn école boo xamante ne école bi gën a école bu gën a yàgg la Russie vingt cinq sénégalais ñoo fay jàng man discours am la mu dox ji yëpp damaa dem xooli ji ci page am ma xool partout mu ko def yëpp parce que moom chaque instant mu ngi posté la mu dox Russie yëpp fa mu toll loolu yëpp mu ñu koy posteel pour ñun ñu xam lan la fay lijjante mais ñun lam fay lijjante ñun lijjante wuñ ko de ñun ñu ngi compté waa APR défaut yañ fa jël ndax waa APR suñu wujju lañu c'est normal que ñoom bu ñu duggee suñu page yi bu ñu déggee suñu ministre ñoom suñuy défaut ministre rek la gis duñu gis seeni qualité dina ñun dañoo war a dem dugg sa page yu Yacine ñu dem xool ji ay qualité ak yu baax baax ya mu doxee Russie ñu ñëw teg ko ci kaw table bi te yu baax baax ya mu doxee Russie boo leen ko tegee ci kaw table bi Sénégal yëpp ay topp ci ginnaawam dégg ngeen mhm. ndax nee ngeen rey yi bëri na temps yi maire Yacine Fall seen sécurité la demoon lijjante ji Russie dégg nga voilà ngeen dem déglu la ko ministre Russie ba tontu ak fan la monde bi toll ak ban situation la Macky Sall lan la maire Yacine Fall nekk di lijjante actuellement. après nag ngeen mën a ñëw taxaw ak waa APR wax ñoom léegi nag waa waa APR yéen dinaa leen laaj ndax am Kumba Timbo déggoon na tubaab déedéet yaayu Marème fay Sall mos ngeen ko dégg muy làkk tubaab déedéet Marème fay Sall dégg na tubaab déedéet discours ba euh, nu mu tudd suñu ministre bii nii maire Yacine def fële na le Russie méngoowul ak discours ba ngeen demoon lijjanti méngoowul de mais yéen lu baax la mu fa def ah yéen seen président moo dem ba Russie dafa taal ay bougie ma ne ay maamam ñoo dee Russie ñoo dee ca guerre ba mère Yacine lam fa yi lu leer naññ la lu nit mën a dégg la dof yi rek a ko mënta dégg dégg ngeen ñi amul xel rek a ko mënta dégg ñu nitewul rek a ko mën a dégg mënta dégg dégg ngeen ngeen ko nag ba mu dem ci waa APR waa pastef nak ñi ñew sama page di dénigrer nan déggul tuba ku ci né dégul tuba mu bloqué sa nday parce que nit ki bala nga koy mëna critiquer da ngay dem nga déglu lamu wax ba paré te yeen da ngeen ko tam nak yeen wa Pastef da ngeen tam di critiquer nit te do leen déglu té wa Pastef wa APR xam nañ né yeen da ngeen di critiquer nit te do leen déglu lamu mu wax yépp yeen da ngeen di tan la leen ci neex wala leen ci wa APR tanal top diko diko di ko critiquer di ko critiquer di ko critiquer ah te doo leen dem xooli ji fond bi ak form bi ba pare man ak Mère dama ko topp fond bi ak forme bi te man maa fi dàq critiquer mais ba ma demee amul dara luñ ci war a critiquer parce que lañ ko yónni yëpp la dox ma dem xool média français yi lan lañ ci wax ma gis ne lañ ca wax ah ñoom dañoo tiit mooy Mère boobu noonu.

ah bay war a mën a dugg sama page ah, di ñëw di critiquer loo xam te ne amoo leen ci argument dégluwoo leen maire bi xamoo leen lan la meer maire seen wax ah ngeen ñëw naan wax di topp di lambar lambar yi ah, parce que ñu yéen waa APR ah, dañoo mën a dugg si seen cerveau yi ah di leen di di leen kalli ngeen mel ni ay dof. Jacob maa ngi lay bu baax a baax a baax donc maa leen di ñaan ngeen partage ko le maximum. que maa ngi ci liggéey bi bonjour maa ngi ci liggéey bi may xaar nag ba ngeen ñëwaat encore di wax ndax xam naa ne man samay wax neexu leen samay jëfin neexu leen da ngeen di xaar rek moindre truc ngeen déformer samay propos parce que ay déformateur de propos ngeen yéen ak waa APR yéen a yem da ngeen mën a déformer ay propos nit parce que kon naka ngeen mën a duggee sama page ma def benn affaire di défendre mère Yacine yéen ngeen ñëw mel ni man ah indirectement damay saboter mère Yacine ngir ñëw encore di répliquer d'une manière ah comme si mère Yacine déggul tubaab te yéen déglu leen la mère Yacine wax yéen a ngi défendre koo xam te mun yéen na ngeen koy défendre moo baaxut parce que déglu leen lu mu wax te jëloo leen seen temps déglu lu mu wax comme si moom la mu doxi ji woon du si intéressé wu leen mais jéemuñu sax comprendre géopolitique mouton yi jéemuñ sax comprendre géopolitique xamuñ sa fuñ toll xamuñu sax ne ñii di dugg ci biir kër yi di rayee di pistolet nit yi xamuñu ne Macky Sall joxe na fi ay armes yàgg na ñoom xamuñu lii gaal bi di rii de déedéet fi ngeen toog heureusement Maître Yacine Fall dem heureusement mu dem ndax ma Sall léegi mu taal dëkk bi wala dof dof la maa ngi nuyu di leen